ancien président dinañ ko dégg ancien ministre dinañ ko dégg waaye ancienne nag sénégalaise kenn du ko dégg ci àddina kon pays bi ñu ñoo ko moom vous parlez de paix ñun du ñu woote violence te dañuy ñaawlu li nga xamante ne xew na fan yi passé waaye yuuxu boo gis am na lu ko waral sëgëm nit ñaa ngi dee mais attends ministre de l'intérieur barki de moo Ndiaye monsieur John euh, monsieur euh, euh, Antoine Félix mais attends monsieur Diom man man j'ai rien contre cet homme mais hier mais quelle agressivité dafa dafa dafa dafa il il était limite euh, sur le point de nous donner des claques Idrissa Seck même si son discours dafa xaw a nekk benn benn benn discours de politicien mais au moins il a mis les formes mais moi j'étais choquée hier d'entendre le le le de regarder euh, monsieur Antoine à la télé fas kanam gi parler comme si day dem guerre oh léegi nag yéen boo leen nangoo lii dëkk bu tàkk ngeen di wax sàcc Auchan ngeen di wax chaque jour tubaab yi ñëw pillé suñu géej gi gis ngeen pillage bi xew démb dafa nekk lu ndaw te ñi nga xamante ne ñooy pillé suuf si di sàcc milliards yi ñooñu dañ leen gisul xale yi nañ gis te tamit dama koy condamné waxuma que dama leen dama ànd ak ñoom parce que tamit man Auchan ay yëfu tubaab la yëfu sénégalais d'accord ma ci parce que suñu parent tubaab suñu parent sénégalais yaa ngi Europe di daan doole di liggéey ak tubaab yi sénégalais de l'extérieur yi engagé am jom bëgg seen réew dañ te dëgg ñaata artiste ñoo fi nekk tey mais faut arrêter avec l'histoire de Samba Mbayaan mais jug leen wane seen bopp mais jug leen wane seen bopp waxuma leen ngeen faral sonk wala Macky mais sénégalais yiy dee suñu xale yi nekk ci mbedd mi ngeen ne patt pattaaral événement bu amee yéenay njëkk a jug sénégalais jàppale leen mais fu arrêter à un moment donné faut arrêter lii bu doon pérétu esclavage yéenay tax ñuy noot bu ñu nootee yéen a tax fii ku noppi da nga nekk complice démocratie la faral leen Macky Sall d'accord vous êtes libre et on respecte kenn amul droit saaga kenn parce que dafa faral Macky waaye nag ngeen may nit ñi seen jàmm bu ñuy soutenir Ousmane Sonko te d'accord ma bu ñuy wax naan oui vous êtes des femmes nanani nanana mais c'est révolu tout ça les femmes ne sont plus ci air boo xamante ne dañuy toog def seen maquillage def seen taloo cokki cokki def groupe def seen musóor di tàccu présence wiiw wiiw loolu dafa xeewi loolu suñu ay jamonoy maam la ñu aujourd'hui les femmes vont prendre la parole nos enfants sont en train de man doomu gendarme la sama papa tey dafa jug dem armée sama papa dafa xeex pour le Sénégal il a servi le président Diouf sama papa dafa liggéey ak président Diouf pale la jëlee retraitam sama enfance yëpp maag pale ñoo jàkkaarloo nii suñu kër ñi may setaan dinañ ci xam suma ci wax parce que gawma loolu gawma loolu mais j'ai eu un père digne bi ñu màggee ma koy laaj ne ko papa am na ñoo xamante ne ci ab Ablaye Wade nekk nañ ay garde corps ñëw ñi am seen ay kër ay seen ay château ay milliards papa lu tax amoo kër boo xam ne di la nekk comme ñoom waaye il m'a fait savoir que ñaqam la dundee te ñaqam may ko ko woon c'est un homme très noble waaye tey alhamdulilah parce que bi mu retraité yàgg na te mosoo dégg dara kon macha allah doomu gendarme mooy wax ak yéen tey dama bëgg a woo sama papa colonel yi papa généraux yi papa major yi. man ti camp laa juddoo conk gii laa màggee ak caserne Faidherbe lan mooy ndayu ay policier jël dem ay di tirer ay manifestants il faut pas qu'on qu'on qu'on qu'on fabrique des monstres je suis désolée man je suis outrée par tout ce qui se passe mais mais policier naka nga mënee jël wala gendarme yow pistolet nga mel ni ku nekk euh, guerre seen peuple kenn waxu ci kenn waxu ci nervi yi ngeen jël di leen fay dix mille quinze mille ñuy terroriser population bi bës bu population bi jógee ba révolté di ngeen xam ne lépp dëgg la di ngeen xam ne nguur jaru ko fii li fi xew ma barke dem moo njaay mu ngi fi waaye lii yëpp man en âme et conscience damay woote pour jàmm ak salaam parce que suñu liggéey nañu am suñu ay doom nañu am xale yi jàngiwuñu ñun liggéeyuñu ñu ngi nii toog ci kër yi di xoole waaye nag jàmm ji dafa war a nekk ci ñaari parti yi mooy ngeen may nit ñi seen jàmm ñun dugg ngeen fi xeex comme li ma doon wax sànq mbirum mbënn bi président jugul ba tey jaale nit ñi tweet la bind il n'a même pas reconnu ses morts après tey ñun jug nañ kaas ñëpp ne patt ci internet bi kenn waxu ci waaye luy raam ci bi lay ñëw te eh, nag ñag bi la jëm gis nga ku toog seetaan tamit ay bi buy ñëw dina dal sa kaw bopp kon woote leen jàmm woote salaam te beneen chose aussi euh, chef religieux yi Euh, damaa bëgg ngeen xoolaat seen bopp parce que man xool naa fi ay jamono chef religieux yi bu ñuy jug di wax ci politique ñëpp di bind ñëpp di bind ñàkk teggin